alors tey jii la euh, fukki fan ak juróom-ñett ci weeru septembre bokk na ci euh, date yi ñuy taxaw ci atum 2019 euh, ci veille ba bës boobu nag dafa amoon benn gaal bu suuxoon daanaka ñu ngi doon dem ay touriste fële ci ilo Sarpan ñi def ab excursion waaye nag gaal ba dafa suux ba ñeenti nit ñàkk ci seen bakken ñoom fukki fan ak juróom-ñett ci weeru septembre lañ leen mujjee jëbbal suñu borom accident boobu lee fan la mujjee enquête beeg lépp dinañ ci taxawaat ci kanam waaye dañuy dem fàttaliku yeneen xew-xew yu am 18 septembre at yu wute fukki fan ak juróom-ñett ci weeru septembre atum 1973 njiitu réewu Sénégal Léopold Sédar Senghor dafa yëgle ci benn bataaxal dogal bi mu jël nag ngir dakkal relation diplomatique yu nu amoon ak réewu ginne li ko waral nag mooy Sékou Touré di njiitu réewu Guinée ci boppam dafa jiiñoon Senghor ak Houphouët-Boigny que ñoom ñoo nekk ci gannaaw ñi ko bëgg def coup ngir daaneel nguuram Senghor nag dafa waxoon waa OUA ñu taxawal ab commission inter interafricaine boo xamante ni si Sékou dina indi ay preuve ci li mu leen di tuumaal waxtaanee ay yoon yoon ngir jàmm am relation diplomatique diggante Sénégal ak Guinée dinañu ko delloo si waat le 18 mars atum 1978 ci am ndaje nag bu amoon Monrovia réewu liberia fekk njiitu réew yu bëri daje woon fa. fukki fan ak juróom-ñett si weeru septembre atu 1946 moo nekkoon gane si àddina Omar Blondin Diop ca Niamey ñu ràññeeku bu baax nag comme philosophe rawatina révolutionnaire sénégalais Omar Blondin Diop nekkoon na ku fësoon lool nag ci mouvement contestataire bi amoon weeru mai atu 1968 ngir défier njiitu réew ma Léopold Sédar Senghor naka noonu nag si la ñu ko tëj kaso ca diwaanu Gorée fukki fan ak benn si weeru mais atu 1973 si la waa administration pénitentiaire yëgle ni ko Omar Blondin dafa xaru mu nekkoon tiis bu metti ci askan wi fukki fan ak juróom-ñett ci weeru septembre atu 1970 tombé ak génnub àddina James Marshall Hendrix ñu gën koo xam nag ci turu Jimi Hendrix ca Londres bi muy am 28 ans daanaka nag ñeenti at rek la defoon nag ci carrière internationale am kii sosoon groupe bii di The Jimi Hendrix Experience bokkoon na ci ñi gënoon mën a jouer guitare ci àdduna bi. fukki fan ak juróom-ñett ci weeru septembre atum 2015 équipe nationale bu football de moins de 23 ans ñu jël médaille d'or ci 11e Jeux africain ya xewee woon nag Brazzaville ginnaaw ba ñu dooree Burkina Faso benn bal si dara bés boobu nag si la football sénégalais am titre continental bu njëkk waaye nag juróom-ñaari at lañu si teg rek suñu gaynde yi gañe CAN 2022 fukki fan ak juróom-ñett ci weeru septembre atum 2013 ca Nigéria rebelle jihadiste ya fare Boko Haram nag dañoo attaqué ville bu benn Benichek féetee diggante Damaturu ak nag Maiduguri ñoom nag ba ñu duggee ci ville ba dañu fa taal ay kër yu bëri ba lu toll ci 161 doomi aadama ñàkk ci seen bakken ñu taxaw ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru septembre atum 2013 ginnaaw ba 24 heures jàllee famille yi nag dañoo denc victime ya ñàkkoon seen bakkan ci wetu ilo Serpent ba ndax nag ab touriste moo suux ba ñeent ñàkk ci seen bakken ñett ci ñoom nag réeroon ci kenn gisu leen ci ndox mi 37 personnes nag ñoom mujjee nañu rëcc enquête bi suñu autorités yi ubbi woon nag ba nigi ni amul suite judiciaire ñuy laaj rekk lu tax changement amul ginnaaw ba juróomi at jàllee naka la famille victime yi du dundee situation bi. juróomi at gannaaw jee ji am yoon ñu doon xaar kon mu wax ci lu leer bépp responsabilité boo xam ni kon war nañ ko ci wax loolee doon luy leer ci bopp nit waaye loole amul ba tax kon ñëpp am ci loo xam ne nii ëlëm na seen i bopp fekk ci njaboot ci nga xam ne nii ñoom la seen doom euh, des kon ci suuxu gaal gi ñoom ñi nga xam ba léegi sax ñu ngi jooy seen euh, seeni doom waaye lu waral seen noppite ba léegi ngir kon ñu dem ca cappaandalu mbir mi justice wax ci lépp loo xam ne nii war na ci am moonte ñoom ñi seen yaakaar mel ni lu tas ci kon yoon ga nga xam ne ñu ngi ko ci doon xaar donte sax bëgg nañ ci am lu leer gannaaw kon suuxu bat bi nga xam ne nii jóge woon na ci îlot Serpent doon delluwaat ca quai bu Soumbédioune donte prévision météorologique yi àndu ci woon te it agent parc national île de la Madeleine dem kon bay amal loole nga xam ne mooy excursion ba mujjantal musiba bi ñoom ñi nga xam ni sax ñu ngi bokk ci état bi te sax ministère de l'environnement uuf leen ci jamono joojee Abdou Karim Sall jiite ko ba tax kon ñeenti nit ñàkk seen bakkan ñett kenn gisatu leen am ci fanweer ak juróom ñaar yoo xam ni kon jot nañ leen sauvé bokk na ci ay doomu réewu France don drame goo xam ne kon Sénégal lu ko fàtte mukk ñi ci leen bakkan des ci mbir mi bokk na ci woon ab jarbaatu ministre des forces armées boo woon di Sidiki Kaba waaye it agent parc national des îles de la Madeleine mbir mi nga xam ne nag jëm na ci mbirum yoon ñu koy xaar ba léegi lu tax antuwul ndax dafa am ñoo xam ni kon da leen ak lu tax ak lu ci mu munti nekk enquête bi taxaw na donte sax amoon na ab enquête administrative goo xam ni kon ubbi woon nañ ko ñett fan gannaaw mbir mi te sax rapport bi ñu jébbaloon ko ministre bi di Abdou Karim Sall fanweer fan ak benn ci weeru moom mi nga xam ni kon mu ngi doon xaar xool lépp loo xam ni jëm na ci mbir mi ngir jébbal ko président de la république ba woon di Macky Sall beneen enquête goo xam ni kon xamle woon nañ jamono joojee dinañu ko ubbi muy enquête judiciaire ga ñu waroon jox section environnement bu légion ouest bu gendarmerie nationale tey jii mbir mi am ak tolluwaay gi doon loo xam ni kon jaaxal nit ñi sax doon loo xam ne nii melul ne exemple la ngir kat ci yu mel nii di ci bañ a am te sax mujjantal gi ci responsabilité ya ñu war a situer doon loo xam ne nii kenn du ci xam dara. Abdoulaye euh, Cissé euh, yaa ngi koy fàttaliku euh, lii nga xam ne ba mu fi xewee boobu ba léegi annoncé nañu enquête ak yeneen mais boobu ba léegi ndax yëf yi finalement situé nañ responsabilité parce que juste après mesure d'urgence yi ñu jëloon mooy tere woon daanaka nit ñi di demati foofu noonu. li ma ciy gën a fàttaliku sax. Mm. yàlla dafa def ni ma kii ma jàkkaarloo ni Chérif Dia. Mm-hmm. keroog ñoo ci ci ça s'est passé en pleine nuit il faut mm-hmm. dire affaire. Mm-hmm. guddi gi la ko traité parce que ci lañ ko yëkk. Chérif mi moo fa nekkoon man j'étais à l'antenne à la radio. vraiment on a fait une édition spéciale toute la nuit toute la nuit mais li nga ci gis mooy au fur et à mesure les autorités sont allées sur le terrain. te Aliou mi ñuy gis moo nekkoon ministre l'intérieur. maître Sidiki forces armées euh, Abdou Karim Sall moo doon ministre mm. euh, président Macky Sall mm. amoon na jarbaatam boo xam ne ci la des le général mm. nuit la République était mobilisée foofu noonu ba ci président de la République ah mais lii lu gàtt li ma ci mën a wax mm-hmm. mooy peut-être que war nañ déclassifier rapport bi xam nga lu tax. Mhm. parce que j'ai le souvenir précis du ministre de l'environnement Abdou Karim Sall. Mhm. bi mu jotee rapport bi. il nous annonce que le rapport va être mhm. ba tey ba suba. très souvent noonu la ñuy nelawloo nit ñi ci ay lii parce que lii li mu wone woon mooy. une chaîne de responsabilité boo xamante ne nii mais ba ay bakkan rot ci ci fa nga xam ne nii foofu la ñu ubbi voie boobu ñay convoyé ña nga xam ne ñoo leen war a wattu c'est-à-dire condition de sécurité yi waroon a am ci lii ci exploitation bi dara dara defuñu ko ci moo tax rapport boobu lu ñu war a taxaw la déclassifier ko mm. teg ko ci teg ko ci table bi parce que moom su me rappelle très bien bi mu ko jotee promettre na ni rapport bi dinañ ko publier balaa yàgg mais ba tey ba suba kenn publier wu ko te yii noonu lañ koy tafantaloo du ñu ci jàngee en fait lu ñuy empêché mooy du ñu ci jàngee. Mm. xoolal tey c'était c'était quatre morts soo ko méngalee ak mbëkk mi jotewul dara dans dans les faits. Mm-hmm. parce que ñii dañ doon dem en croisière ci seen tey bakkan mais finalité bi benn la. ay nit ñoo ci ñàkk seen bakkan. Mm. problème organisation de secours par exemple. ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne moom moo ci am ak ni état war a taxawee moo tax ñu war a événement yi bu ci jàngeewul jàng bi mooy documenter ko xool chaîne de responsabilité yi ba xëy na du amati. wala bu amee it comme mënta ñàkk. parce que mm-hmm. ndog mën na doon ci dogal yàlla. ñu xam état nu mu ci taxawee. mais encore une fois c'est un mm-hmm. rapport yooyu jot na ñu publier ko. ñu xam dëggantaan lan moo xewoon. parce qu'on n'est euh, ci beneen accident bu ni mel nii. comme li ma wax rek les politiciens ils ne sont responsables bu mbir amee rek ñu techniciens yi wala fonctionnaires yi la ni saraxee ñoom ñu jàpp ni alors que jëloon nañu décision. Mhm. tëj île bi ba al dikk mun. mun tam alors que la mhm. solution c'était pas de fermer l'île mhm. parce que nit ñi dañu war a dikk mais comme ni ko Ablaye waxee jàngat ci rapport pour renforcer les mesures ñu jàll ci leneen muy xibaar yi ñu tënk ko ak Cheikh Tidiane Diaw.